Salam alaykoum salam, Seydou Cissé ñu ngi lay nuyu ah ñu ngi lay euh, fay. ki téléphone Seydou Cissé entrepreneur en même temps coordinateur départemental bu Thiès ci mouvement MSC mooy mouvement Sénégal conscient euh, mhm. Seydou tey si chronique du jour ñi bëggoon waxtaanee ci kaw Mimi mhm lan moo tax geste bi tax taxaw mu fa est-ce que dañ ko wor moo mu taxaw fa est-ce que lan est-ce que c'est-à-dire lan moo tax décision bi mu bëgg a jël mu jël ko wala fi taxaw mu fa comme koy donc maa mouvement MSC département bu coordinateur. Euh, waaw bu fekkee ci situation euh, Mimi Touré bi la kooku moom yàgg na ci damay wax ni moom pion la boo xam ni pion Macky Sall la boo xam ne Macky Sall xam na li mu ko mën a apporter mooy njëriñ bi mooy peut-être elle est ku am courage la et puis elle dynamique et ku mën a sonn la pour euh, président Macky Sall donc loolu Macky Sall du ko sàgganee daf koy utiliser le président daf koy utiliser bu baax a baax a baax mais nag bu desee par rapport ak ndomba tànk kooku je pense que ni euh, mënatu la am lu ëpp li mu amoon ci bi euh, euh, APR bi soog a jël pouvoir bi kon donc lépp lu mu yaakaar wala lu ko promettre que nii dinañ ko ko jox lu gën a yées li mu amoon man gisatuma ko ci parti bi mais nag ñu ko génne te dinañ koy soxla je me suis dit que mais li ñu ko soxlaa moom xam na ko comprendre na ko li ko président di doyee moom comprendre na ko donc toujours ci loolu lay nekk malheureusement nag moom mooy dundee yaakaar rek toujours mais man je pense que ni amatul benn poste de responsabilité bu bu wala bu am doole boo xam ne président dina ko kon lan ah, lan nga gis ne moo tax moom tey mu doxalee ni mu doxalee gedd dem di def ay sorties naan waxuma ngeen votel ma président li mu def daf ko lu muy dund nii yàgg na koo dund. absolument yàgg na koo dund xam nga nag souvent politique dafa doy waar souvent dañ lay dundloo yaakaar rek aussi da ngay yaakaar rek. waaw nit mën nga ñëw léegi mu def la naka sudul noonu humilier la wàññi la suba mu woowaat la wala boo bañee mu jaar ko ci ay kilifa te gis nga réalité Sénégal donc euh, le cas de Mimi Touré moom moo war a xam boppam toog benn yoon xam ne dafa nekk ci parti dafa war a liggéeyal parti mu toog liggéeyal parti bi te bañ a nekk di xaar ay cër euh, xam ni sénégalais ko tax a jóg mu liggéeyal Sénégal euh, au nag mu ne mu ngi xaar ñu sedd ko lii wala sedd ko lee dafay sonal boppam président Macky Sall je pense que paaka la kenn du ko gis ci param te comme limay wax rek ay calcul politique mom euh ku koy xaar ci euh côté bobu bo deful ndànk da ngay ndermelu ba daan tay lan nga gis ne tay lan nga gis ne ci sa ndortu Mimi Touré tay nar nako def est ce que da nga yakane dina taxawal partem pour dem 2024 waaw yëpp mën na nek nak franchement mais xam nga yu mel noonu moom euh, du yombee noonu parce que président defe naa du am ku mel ni Mimi Touré di ko sàggane à moins que président raxas loxoom ba set wecc ci euh, ëllëgu politique bu réew mi xam ni li ko fi dese peut-être mooy quatorze mois mu ne euh, naa rafetal li des sama ginnaaw dem sama yoon le reste sama yoon bi ci nekk donc bu fekkee du loolu je pense que ne bu fekkee am na yeneen ambition moo xam nu mu koy organiser je pense que ne mën na Mimi Touré mën na bañ am parti mais tey bu defoon déclaration bi mel noonu wala bokk ñoom ñu xam ne noonu lay demee ëllëg Mimi Touré day taxawal parti parce que parti nag je pense que ñu ci bëri moo leen ëpp jom pour laak fayda ci wàllu boobu moo leen gën a ñemee coono ci wàllu boobu te moo leen gën a gore aussi vraiment moo leen gën a gore loolu gis naa ko parce que li mu daj yëpp ci euh, parti bi te tréewul heure bu ko waatee mu ñëw wala tréewul toujours même boo ko dindi woon ba mu setit mu ngi toppaat seen ginnaaw vraiment kooku je euh, que parce que boo nee gore dina ma xaw a jaaxal bu nee parce que li muy xeex mooy njaboot gi nga xam ne Macky Sall lu mu rek jox leen ko njabootam gi loolu la loolu loolu kon a xari moo tax mu ne day écarté wu te loolu yàgg na fi moom mu toogoon ak Macky Sall di ko dund kon est-ce que gore boobu mi ngi ci. Euh, waaw xam nga nag euh, dama ci ñëwaat rek gis nga politique jeu de dame la rek. jeu de dame la boo xoolee euh, euh, situation bi da ngay xam ne euh, président Macky Sall aussi day essayer rek c'est comme basketball dañuy jël ailier bi yóbbu ailier gauche jël ailier gauche bi yóbbu waat rek jël ailier droite bi indi fii bien jël meneur bi pivot bi changé donc ci calcul boobu la nekk donc je pense que ni euh, situation Mimi Touré ñàkkul ni mu ngi xalaat fu mu ko war a teg ngir mu bañ a taxawal partem parce que loolu yàgg na fi ñoom Amadou Ba ñoom Aline wi ñëpp gis nañ leen fi donc da nga naan euh, peut être ëllëg problème mooy am mais je pense que bu leen woowaatee ñu waxtaan ak ñoom day trouver ak ñoom ay terrain d'entente xam nga. non dafa mel ni dafa mel ni sama question bi déggoo bu baax dama ne. Hmm? Mimi Touré ci boppam yàgg naa gis li Macky di def ci famille am. te hmm, hmm. kaasu ko tey la koy doog a kaas. c'est-à-dire pourquoi mu xaar ba tey di ko di kaas. waaw no loolu yàgg na ci souvent dañ naan bu ñu nekkee ci biir ay homme d'état lañu donc droit de réserve lañ lay wax ak yu kenn xamul donc yooyu moom c'est du n'importe quoi looloo tax ñoom souvent loolu day nekk ñoom seen biir rek euh, mën na génn nag di euh, victimiser wu mais ñi nga xam ne xam nañ politique buñ ko yërëm parce que dañuy xam ne voilà elle était là-dedans donc. Euh, waxul woon nangam waxul woon nangam du dem ba ci biir muy wax nangam donc loolu moom yàgg na fi kooku moom bu ñëwee doo indi gor ak yooyu mais quand je vous dis de gore et mooy yàgg naa daj lu mel nii ci parti bi depuis muy nekk premier ministre ñu dindi ko ba tey ci yi rek moom la ñuy utiliser toujours mooy nekk euh, li ñuy wax nagu sarax bi voilà mais euh, bu toogee ba tey mu wax lii da ngay xam ni daf ko wax pour intérêt personnel am parce que si ce n'était ko dégg peut-être. pare ne gore. ci wàllu politique nga xam ne askan wi yëpp nga war a liggéeyal nga ne intérêt personnel loolu dina ma jaaxal. waaw xam nga quand je parle de Gorée mooy euh, dafa am ñoo xam ne tey euh, bu ñuy ànd ak yow ci euh, jëf ci baax sax dañ ciy ànd ak yow bu ñuy ànd ak yow ci safaan dañ ciy ànd ak yow boo defoon naka su dul noonu sax dañuy ànd ak yow. même ba ci même ba ci loo xam ne alalu. ba ci naka ba ci loo xamante ni alalu réew mi la alalu sénégalais yi la. je vous parle ba boo doon euh, boo doon boo doon taal adduna bi dañ ciy ànd ak yow saa li ma la bëgg a wax mooy euh, dafa am ñoo xam ne bu ñu jàppee rek jàpp nañu man je crois que Mimi Touré genre boobu la boo xoolee génn yomb ko euh, mu démarqué wu yomb ko malgré mu ngi koy jéem mais yomb ko donc. kon li nga bëgg li ma li ma déggee ci wax ji li ma déggee ci wax ji mooy tey Macky Sall bu doon taal réew mi Mimi du xool askanam mais day ànd ak Macky Sall ci taal réew mi. non je te parle pas de ça je te parle juste rek. Euh, fidélité bi mu am par rapport au président Macky Sall. ma yaakaaroon fidélité bi réew mi la ko waroon jox askanam la ko war a jox. waaw absolument xam nga xam nga nag saa boo gisee kuy gouverner souvent di indi sa jarbaat doom xarit ak yooyu yu demee noonu la c'est-à-dire nit ñi aussi euh, buñ fi nekkee aussi pour réew mi wala nekk ñu fi pour réew mi gars yi dañuy dañuy dañuy seen bopp ba pare quoi li ma bëgg a wax avant tout d'abord looloo tax. Euh, souvent ñuy am yenn jafe-jafe yi parce que toujours ñoom ñu ngi euh, yootu ay euh, euh, boo xoolee loolu ci côté opposition bi feeñ na ci mooy lu lu ñëpp aussi ñaawlu te moo leen yàqal lu bëree bëri wax nañu ko parce que mënuñu def ay coalition génne fee yeew yi génne fële wàllu et ak yeneen ak yeneen yi am dem ba ci biir sax ñu gis ne du dem ñu def intercoalition pour gën a am doole wan ni ñu ñun benn lañ te wax ñu ba mu leer ni ñoom bu ñu demee assemblée benn Euh, liste la ñuy am et benn benn kii benn ligne de kii la ñuy am malheureusement ñu ñëw indi lu ñu euh, proposé ñu trois trois candidats nga loolu euh, da lay leen ni kii interpersonnel commencé na dugg donc dafa mel ni ñoom it dañ doon dox suñu xel ci benn côté donc loolu il faut aussi ñu bàyyi ko xel moo tax politique dafa garaaw du rek ci camp présidentiel la nekk mu ngi ci camp yëpp. non côté bi ngay waxee je pense que ah. ne intercoalition bi benn candidat la génne woon muy Barthélémy Diaz. lan mo indi candidat. non non pas Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz ak Mamadou Lamine Thiam. d' accord bi ñu Abdoulaye Wade proposé. d' accord maanaam lan mo indi candidat wu Ahmed Aydara. Ahmed Aydara. Ah bon mooy mooy li ma wax rek toujours xam nga doomu aadama yi aussi yow da ngay euh, génn bon euh, man sax dama dama ne Ahmed Aydara bu deful ndànk day nekk moor euh, morne ci politique. morne mooy euh, nga am ay principe nit ñëpp fekk la ci jàppale la ci dem ba ci biir gis sa doxalin commencé changer pour intérêt ndax vraiment moom taxaw na man euh, suivre naa ko à la télé une fois mu wax ni en tout cas coalition intercoalition wàllu taxaw bu demee benn candidat la am moom la soxla moom la ñuy taxawal ñu dem kon donc mënuñ dem ba ci biir ñu proposé Bart nga xam ni askan wi moo ko soxla laay wax daal expérience am proposé ñu euh, Mamadou Lamine Thiam ay dara génn fee ni moom pourquoi pas ndaxte nangam ndaxte nangam donc loolu toujours day wane ne rek doomu aadama yi même bu ñu bëggee sax xeexal eh, eh, Sénégal dafa mel ni tamit souvent dañuy bëggaat ay eh, wàllu privilège nga xam ne dañuy jiital kan, seen bopp d' abord soog a soog ci askanu Sénégal c' est ce qui est malheureux et déplorable. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm Seydou Cissé di fàttali askan wi ne yow yaay coordinateur. départemental bu Thiès ci mouvement MSC MSC du mouvement Sénégal euh, conscient ñing lay jajeufal bu baax.